askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm ñu ni wadd ninki nanka politique gi ku foogoon ni ko day toog ci ruqam ko daal nag di gérer ndànk tranquille li nga xamante ni moo di résultat législative 30 juillet 2017 yi yéen kay bi xëy na nag daat yi ko yëy yàbbi nañu maître Abdoulaye Wade ki ñoñom xëy nañu daal di janoo ak ko ñi nga xamante ni ñoo di taskatu xibaar yi dànkaafu la daal di def de maître Abdoulaye Wade ni ko la nga xamante ni moom la ñu bëgg moo di lan dëgmal nañ ko lépp lu Macky Sall dugalati loxoom ak ko gouvernement ci organisation élection ma ne ko duñ ca bokk yamul ci loolu de nag da la nga xamante ni moom la ñu bëgg dëgg dëgg dëgg ah ko yëral yéene kaay bi ndaxte gis nañu njuwut njaaj ak labaj mi ngi ci biir ma ne ko carte gii nga xamante ni nag moo ñeel législative yi benn Bokk Yaakaar daña ngay tragique ko destin la ñu daal di gis quotidien ni ñu wattu la mu watat nag moom moo di lan charge na ma ne ko kii di Macky Sall yëkkati teg ci sën wa daal di teg ndaxte gis nañu ni élection yi mascarade électorale la yamuñu ci loolu de maître Abdoulaye Wade ak kaddu ya ba tey ni ñu mascarade électorale bi de yàgg nañu ko daal avancé de lañ ko doon ruumbalaat kay day génn ma ne ko de fa xël daal di sotti ay électeurs yu nga xamante ni ca Gambie Guinée Bissau ak Mauritanie lañ leen daal di jëlee fàq dugal ci réew mi ruumbalaatuñ ko fi woona loo ca mënti dégg daal gis nañ ñu daal ko élection yu nga xamante ni Macky Macky Sall ak gouvernement ko def nañ ko ñoom nee nañ dootuñu ci bokk les éco yéene kaay bi di ñu xamal ni ñu Wàdd nag ko sulli na li ñu suuloon muri li ñu muuroon wax nag li nga xamante ni moo di vote bi nga xamante ni ko amal nañ ko le 30 juillet 2017 xam leen na ni daal ak la mu dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall ko yamu ca de nee na nag ko élection yu Macky Sall organisé parti démocratique sénégalais du te jaaroo taal waaye nag ma ne ko yem na ci daal ni bu fekkoon sax ko moom ñëwul mbir mi daal di gën a ñaaw ndaxte parti démocratique sénégalais sept député dong la leen di jox di 8 rax ci dolli nag ku ñëwam bii jàpp nañ ni daal am na solo moom Mamadou Lamine Diallo du ko wetti nee na Wade ko vrai exemple de courage la ndaxte nag ko boo ko xoolee ba ca biir maa ne ko ah Sonko am na lu nga xamante ni jot na ko ca xamle de waaye nag gis nañu ni assemblée nationale bi ba xam treizième législature bi duñ ca am yaakaaram déet ndaxte Ousmane Sonko danañ ko ca gis gis ca Toussaint Manga ak Déthié nañu ñii seen bopp baax nañu te dañuy dox dañuy dem de ndaxte gis nañ ni daal boo ko xoolee ba ca biir seen ma ne ko maañ day nàcc laas yéen a ñu nañu xalaas maître Abdoulaye Wade nag xël na daal di mën a ko yokk ndaxte boo ko xoolee ba xool nee nañu ah ninki nànk politique gi nee na ñu waaxu giléem la yor nag xajul ci pantere boo xoolee ba xool yëngu na daal di yëngal nee na nag ñëwam gii solo ga ca nekk kenn dootu ko naatable maître Abdoulaye Wade dellu na ba tey di ñu xamal ni ñu boo ko xoolee ba ca biir ko ñoom nag fi mu toll nii dakk nañu ci lépp loo xamante ni bokk na ci ay élection yu jiitu réew mi son excellence moo ki daal di organiser ak gouvernement am yamuñu ci de Sonko ko jàpp nañu victoire ku bennoo bii ko ko xoolee ba ca biir biir ak ko labaja nga ca nee nañu sax boo xoolee maître Abdoulaye wadd mii bu ñu sukkandikoo ci bennoo bay tontu nag xam le nañ ñu daal fi mu toll nii perte gi la nanguwul ba léegi enquête yéen kaay ni ñu profil de député gi deux faatu ñaari faatu yoo xamante nii ko seen gaa leen booleem déet loo ca mënti dégg daal ko foofe noonu am na lu luñ ca war a waat mayel bët ma ne ko kii nga xamante ni moo di ni ci ndànk politique gi wadd ko ñu dàkkantelee ko fara wadd njaak maître Abdoulaye Wade nag ma ne ko bawul dara mu sedd dànkaafu na menacé rax ci dolli 2019 ma ne ko ah parti démocratique sénégalais dana ca ànd ma ne ko wala du ca àndam déet vingt quatre heures ni ñu ko moytul ko maître Abdoulaye Wade ndaxte li nga xamante ni moom lay xencu ma ne ko xeeñul neex wattu gii nag nga xamante ni bëgg nañu daal di déserté ci élection 2019 yii ko yéene kaay bi samp na caw laaj tey wax ministre de l'intérieur bi na dégagé na daal di tëb muy Abdoulaye Daouda Diallo Decroix ni Macky sàll boo ko xoolee ak ni mu doxalee dafa mel ni nag ak ci piri sax la def ci askan wi li nga xamante ni moom la ñu daal di ŋàññ ak li ñu daal di wax maître Amadou Sall administration bi la jàpp ni daal ma ne ko xuusmaa ñàpp la ko jàppee ndaxte ne ko fu ñu leen di xoolal rek ñu daal di xool Ousmane Sonko ni ñu Macky Sall ko est minoritaire waaye maître Abdoulaye Wade ba tey daal di jàpp ni mbir mi boo ko xooloon ba ca biir maa ngi koo wattu Sénégal ca kaw la daal di jëm Macky Sall ñetteelu place ba sax du ko daal di xool Le Quotidien yéen a kaay du ñu xamal ni ñu Ousmane Sonko xamle na ni daal élection yi boo ko xoolee résultat yi Benno Bokk Yaakaar dañ ko daal di préparé nag ñap ñabal ko ba nga xamante ni xam nañu cër ga nañ koy daal di cëroo ku ñu daal di siwal mbir mi yéene kaay bi ba tey di ñu xamal ni ñu bureau ya ca ma ne ko Touba ñu yàq de retour parquet la ñu gis Assane Mbacke ak Mor Lo de ñu xamal ni ñu booba la am na ñoo xamante ni lott nañu ci li nga xamante ni nag moo di lan longue yi ko ci ak ko yi nga xamante ni ñi ngi ci ndungur siin di Diouf organisation élection yi wàdd ko départ ci beneenub campagne booy lan ko boycotté réew mi quotidien di ñu xamal ni ñu daal fi di Macky sal ko moom it ma nga ca ay vacances am nekk ci leneen loo xamante ni nag moo di lan ngundaandaat lam deet ku jëg politique gi def fi mu toll nii ñoo tal dal wax wax de ah maître Abdoulaye Wade ko yéene kaay bi di ñu xamal ni ñu janoo ak taskatu xibaar yi mu nga xamante ni amal na ko bawul dara mu daal di sedd zoom info noonee mu ñëw ci kii nga xamante ni moom moo di premier ministre di Mouhamed Boun Abdallah Dionne xamle na ni daal ma ne ko ki nga xamante ni moo di Macky Sall bàyyi faalam la yàgg di doon te moom it ko moom daal ko moom lu Macky Sall bëgg lu ne ma ne ko ma nga ca nee na ko c'est toi moom PUDC c'est toi moom PSE c'est toi moom Puma nas sénégalais yi xam loolu lépp ma ne ko ci man mii waaye Amadou Ba a di ko yër lan lay rogo jeeru ba xam ko du place Macky Sall bém déet la ñuy rumbalaat ci suuf di ko wax ah jëm na kaw de te nee nañu ah, ay réseau yoo xamante ni am na ko ci këru diine yi demal ca Touba Tiwaawan ba jàpp Njaasaan waaye tamit jàpp nañu ni daal Amadou Ba fi mu toll nii sañ ta bañam déet waaye de ma ne ko Zoom info yaatal na ko de libération yéene kaay ñëw ci ak kaaw tëf goo xamante ni mi ngi nii nee na laaj daak la idrak nee na diggante Dakar ak yokk de doyen des juges bi nag ma ngay interroger financier Qatar bi ay nag ma ne ko yamu ca de la ñuy daal di njott daal ni la nga xamante ni dox na ci diggante ma ne ko ak Karim Wade Dakar Time ñu xamal ni ñu coowul koo xamante ni déggoon nañ ko fi di Hissène Habré ancien njiitu réew yéen kaay bi di ñu xamal ni ñu kaw tëf gu ñuy nëbba nga ca biir waaye ay conseil dem nañu ba xam ne daal mbir mi la ko laloon am leneen loo xamante ni ma nga ca maanaam tëgg wëndeelu la ak loo xamante ni dañ ko daal di waajal ba fësee daal di koy tegal ndar ngepp mu daal di cay dugg ah, ña nga xamante ni dugg nañu fi mu toll nii ni ña nga xamante ni nag ñoo di ñan ña nekk ma ne ko bàyyeekoo ca uso di ay wakaamu waa ñu ni daraam kawtef ba nga xamante ni amoon na ca dem Demba Diop musiba boobee nga xamante ni doomi mbuur ñàkkoon nañ ca seen bakkan yéene bi di ñu xamal ni ñu chambre criminelle baa ngi leen di yodde loo ci mënti déggit mandat de dépôt képp koo xamante ni laare na ci procureur de ma ne ko ma nga ca mbir moomee mayel bëgg yéene kaay bi am ca lu la leer ñu jàll ci stade yéene kaay mu ñëw ci bi nee na démarrage vendredi ah ni ki sub galaxy des stars Pogba Mané Kanté yéene kaay bi ñooñee la xëyee suñu làmb yéene ñëw ci Moussa Gningue sorcier de face nee na à Modou Lo elak ñu wulaa di waajalaat seen bopp bu baax ci wàllu mystique wala perte dina am kum ci ñeel derby Pikine Guédiawaye promoteur yéen ak fi mu toll nii booy Niang 2 ak Sa baa du ñoo leen tee nelaw noonee lañ fa jóge dellu si waat ci l'observateur ni coow fa nga xamante ni moo di Sarayoba Diega yéene kaay bi dellu ni ñu xamal ni ñu daal ab defarkatu téléphone réparateur u téléphone daal maanaam moo fa daal di rendi boppam ginnaaw ak ma ne ko benn laam boo leen bëggee xam nag mbir mi ne mu tëddee ak la ka sabab ak la ne ubbil yéen kaay yi jàll ca biir ñu yéen a ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari wékk ko kenn ngëpp na ko ñëpp comp as laf ci yéen kaay yi jaa jëf